presse El Hadji Ahmed Aidara bismillah ataw Khalifa Sall bi eh. ma ne la mbir mi du yomb de tey la tribune yéene kay ne jàppal ni eh. la xewoon ca mbirum Karim Wade ba waaw ma ne la fi am mu ko ci ay boycott ak yooyu déedéet ma ne benn ci ay avocat day moo xam ne lu ni mel ah déedéet au contraire ma ne la mbir mi kay eh. dana saf sàpp la day ay kurpeñ maara day taal yi la ko wax te jàppal ne atta bi nag la ca gën a intéressant daal di ko ndoor te ñi nga xam ne nag maanaam kenn déggu leen woon ba fii ñuy àddooni nag tey tey ji waaw ma ne la danañu wax te kanamu tribunal ba tey Khalifa Babacar Sall dana wax tey Mbaye Touré dana wax tey Yaya Ba Dieng dana wax tey Amadou Mahtar Diop dana wax tey Ibrahima Yatma Diaw dana wax tey Fatou Traoré dana wax tey Ibrahima Touré dana wax tey Mamadou Omar Bokoum dana wax tey ma ne danañu wax ci kanamu procureur bi nee ma Serigne Bassirou Gueye waaw gars yi itam danañ leen jañaxal de tànc leen poussé leen ba ñu def kon ay erreur la ilaha illallah tribune yéene kaay ne en tout cas Khalifa Sall day waaw ëllëgu politique am day ni nag mi ngi ci loxoom de avenir politique am day ci Khalifa tey la koy joué waaw kii ànd ak moom di Moussa Taye ci yéene kaay gi waaw nee na di Malick la mu doy waaw waru di def kon wàllum taf tafeeg yooyee di ko yaakamti waaw Moussa Taye ne xanaa déggoo leen ko mu dafa am dossier dañ ko patiti patata tey waa PS njiital PS ko ok Vox Populi nee na Ousmane Tanor waaw na Khalifa Sall de ma Ousmane Tanor Dieng gis nga mbir moomee waaw ma ne dañ ko ba kon la ko ne kaay ne njaayum carte parti socialiste yi waaw Ousmane Cissé nee na usurpation moom la waa kër Khalifa di def bokkatuñ ca Idrissa Seck day moo bokk ba mu neex eh. laas tournée yi nga xam ne mi ngi koy ci biir réew a ko Bamba rek wan ko ne yow lañ bëgg eh waaye tamit wan ko jafe-jafe yi nga xam ne kon maanaam moom la ñuy tudd nit ñi kon sonn nañu Idrissa Seck nag jaar na ca saanaar gee jaar ca dawadi di dégg sama waaye tali yi nga xam ne maanaam moom moo fa nekk day miti na lool ma ne du ndox du courant sàkku nañ ca Idrissa Seck moomee mu daal di leen génnee nag ci jafe-jafe yi nga xam ne kon maanaam moom la ñuy moom daamal Kajoor sikundik sikundik ne junne na la ma ne Idrissa jaar na ca gabu gee jamwel Paata Mbay jaar tamit ci Sinthiou Fissa waaye Idrissa Seck de fépp fu mu jaar waaw ma la ñëpp a mer président Macky Sall waaw nee danañ ca dugal seen loxo day enquête yéene kaay ne fanweeri milliard dugal nañ ko ca Emmanuel Macron ne man day ñëw naa gis naa li nit ñuy tiitee jafe-jafe yi nga xam ne kon maanaam moo nekk ci koom-koom gi kon ci géej nar la ko tijjee yéene kaay Emmanuel Macron day nee nañ kon ca def kon juróom-ñetti milliards banque mondiale fukki milliards ak juróom-ñaar ñëw enquête yéene kaay ne waaye président Abdoulaye Wade day waaw bind ab lettre Emmanuel a défendre ay intérêt yu français rek français yi waaw looloo fi indi kon seen président bi te loolooy dëgg te gis nga waaw bu dee Sénégal dafay la baaxul lu négatif dong lañ cey jëlee laa ma ne ubbil Vox Populi journal bi ne ma ne di ci Sénégal waaw la Macron joxe ak la waa France jël ayaa bi mag satrakulos ma ne la président français bi ci boppam waaw lu toll ak ñeent fukk juróom ñaar 47 waaw la joxe ngir dimbali Sénégal waaye entreprise française yi day ay contrats commerciaux euro waa bale nañu kon ñetti téeméer ci ay milliards laa la wax la ilallah ay waay ay waay déggoo ma ne président France bi ñeen fukki milliards ak juróom-ñaar la ñu dimbalee 47 milliards entreprise française yi jël ñetti téeméer ci ay milliards xanaa wax day jeex ana ko perte Ousmane Sonko ci wal fajri ne ma ne déggoo leen ma dama ne président France bi défendre intérêt français moo ko indi Sénégal laa la wax wal fajri ne en tout cas ña nga ne ñoo nekk ak Serigne Mbaye Thiam day ci wàllu ñanga meeg ñangale mi ah ña ngay jéem a jubbante waxu xale bu jigéen ba de da leen a bañ mel ni parce que Emmanuel Macron day dane waa classe bi kañ ngeen tàmbalee nekk ñaar fukk ak juróom-ñetti kon élève ci biir 28 élève ci classe bi xale bu jigéen ma ne ko ñetti fan yi ñu génn nii ay wàjjil ay wàjjil alaaji Malick Gakou ci tribune yéene ne nguuru Macky gi kay sos ñoo ci jël di maquiller ay chiffre rek ana juróomi téeméeri junne yi ñëwoon nañ leen wutal liggéey ana jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la gis ci wàllum gerte gi wàllum éducation ñanga ñàngale mi kër docteur soxla nag waa réew mi ci boppam jóg sénégalais yu bëree bëri sax naxarlu ko critiqué kaas ci tojaange yi nga xam ne nag maanaam kon moom la ñu nemi ko fii ci biir mi la xoolal leen ma ArcelorMittal la fa xew xoolal leen ma petro la fa xew ba ci wàllum impôt bi tappale gi nga xam ne kon maanaam moom moo ca ab fraude bi waaw réew mi nag fi mu nekk nii danoo war a yeewu Ousmane Sonko yemu ca ndaxte nee na gis bu doon ci réew yi nga xam ne kon dañoo développé la ëppale wu leen ci biir réew mi ay ak ak yelleefu réew mi ci boppam ngeen war jug défendre ko yéen sénégalais Ousmane Sonko ci tribune yéene kaay naqarlu na bu baax a baax par par gi nga xam ni kon am ci wàllum impôt bi Sénégal dama ne la bu ne waaw juróomi téeméer ak ñaar fukk ci ay milliards danañu ko ñàkk yaa jum wala maa jum ma ne am maître Djibril War tey tribune yéene kaay nee ay activité ci APR 1 nee bana gelé na ko laa wax dootul yëngu di waaw opposition bi ak syndicat yi waaw mën nañoo lëkkaloo ànd di fa la ñu jëm di dem naa ca lamb ja tribune sox ne Papa Sow Ama Baldé seen face à face bi Thiès waaw Ama Baldé day nee na Papa Sow gis nga karawaas bii ma yor nii yaa ko moom pour yow la Papa Sow ne ko man samay kurpeñ rek doy nañ ma sëkk <laughs> alaaji fi mu nekk nii moom wax daal léegi ci réew mi jaratul door sa doom ñun daal nañ toog rek xaar ba bis ba jot boo paree ma ne la alaaji tëjal su